El Hadj Ahmed Aïdara bismillah ay waay fu réew mi la jëm laaste tout cas Njaay day waaw mooy waa ji nga ne nag moom la jabaru Mbàkke Mbàkke bi taaloon seen appartement ba waaye day mujj naa ñàkk ba kanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah maa la ko wax l'observateur ne Xaadim Njaay day waaw dama ne la mujj nañ koo denc nag ni ki démb kon ca diwaan ak Yoof allahu akbar allahu akbar libération yi ne kaay ne te moonu ñoom ñaari day couple Njaay bi 2012 lañ leen maye woon ñu commencé sëy lépp nickel lépp jaar yoon laa wax diggante Xaadim Njaay na giraawaaleem gu rëy gi lée daal di taal appartement ba laa la wax nga xam ne foofee la ñu dëkkoon te doon maris jëkkër ja lakk troisième degré moom xaadim Njaay ca ndaxte ay da tamit day ca lakk ga daf caa amoon kon ay gaañu-gaañuy ndaw sax yéeni ne mbàkke-mbàkke bi day soxna ay waaw li koy yoo daal fi nekk ni lé kenn ñemewu koo wax maar di taali waaw waaw parce na gis nga sa bi day médecin yi tim ndaw si si rek la ñuy xaar seenu ndigal ngir ñu jublu ci ndaw sax daal di koy téye ndaxte li feeñ ñi la day mooy wàllu assassinat faat bakkan vox populi ne waa ji nga xam ne day jabaram te ca boppam kon da koo taal ah mujj naa ñàkk bakkanam day allahu akbar la ilaha illallah waaye ki rey noo ne ay daka baroom mbake soo leen gisee jàppaguñ ko ba léegi ne le day da am doom te césarienne nag la ko defee dañ koo opéré xaadim njaay day kàddoom yu mujj ci kaw waaw mooy wëy rey a ba ñu koy jébal boroomam na démb day moom xaadim njaay ca diwaanu yoof waaw jabar jee ko taal waaye nit yi mer nañu génn xeetuk mer goo xam ne xol yi dara neexu ci laa la wax dara neexatul ci xol yi jabaram joojee Ayda Mbàkke day doomu Sëriñ Babacar Mbàkke mu ko bëroo la aha maa la wax lii de Babacar Mbàkke mu ko bëroo mooy bàyyam nit ki dee mën a ci talaata ji day Ayda Mbàkke ci la am doom ilaa waaye yow génération bu bees moo tax xale yi jigéenu tey yi lée bañ wujee way laa bopp kon ñoom ñoo bañ wujjee noonee rek ba tax ñuy def giraawaa rëy yii jibi jaxate day nee na daal diine daal moo santaane wujje rawatina nag diine islam Serigne Babacar Sy ñu naan ko njool fuuta ci l'observateur waaw nee Sénégal daal tey jilee toll nañ foo xam ne day dañuy gis ay doomu aadama yoo xam ne dañuy def ay jëfinug mala jëfinug mala animaux maa la ko wax le quotidien nga xam ne ñoom ñooy gorkon mate yi bu aven bi waaw xanaa xamoo leen course moo am ca géejawaay Babacar Mbaye Ngaraaf ci direct info waaw nee gis nga filao yi fii ñu nekkoon ci diwaanu géejawaay gépp daal dinañ koy dagg daal di koy eh eh ah, joxe waa lii moom mooy lii lañ ne mooy lan Babacar Mbaye Ngaraaf ci yéene kaay jógee fay ba yemu ca Ngaraaf nee géejawaay am na ren juróom fukki ati cinquante ans dëgg la ñaar fukki atu yàlla yu mujj yëpp seen xeex mooy nu ñuy def ba am koon ay armeel di cimetière def nañu ñaar ñaari pose première pierre loolu de kenn mësu koo gis dama ne jamonoy Cheikh Sarr defoon nañ pose première pierre ngir armée lu Guédiawaye furaas dal di xidéen Alioune Sall ñëw avril 2018 waaw mu defaat nag pose première pierre bu ànd ak sabaru goo xam ni VIP ñëw folklore dëgg ga yaakaar juddu furaas dal di xidéen déception yaakaar gu piir ba ni ñuy addoon ni lée furaas dal di xidéen laa la wax gis suñu dara ba dara booloo jeex Babacar Mbaye ngaraaf

faalewu leen sax faalewu leen da laa la wax exclusive yéene kaay ne en tout cas diggante Macky Sall ak Aminata Tall waaw mbir mi sedd na de diggante bi neexatul de ah maa la ko Yaakaar yëngootul te moom rek mooy présidente institution boo xam ne defuñu ko délégué régional ci wàllum signature yi moo taxit mu defal leen ci bu neex Aminata Tall zéro signature indiwul benn signature laa la wax jigéenu Benno Bokk Yaakaar itam dañ koy xeex na bëggul bu ñëwee Sénégal gi la ñu dugal ko ci kaso bi moo tax mu jël am feemu bees ah, waaw feem gu bees dàq laa la wax bu ñibbi fii ci réew mi day day ànd ak délégation waaye xeeti Nations Unies ànd ak nguuru CEDEAO ge ngir indil jafe-jafe nguuru Sénégal gi laa la wax ne waaw d'accord na ci candidature Pierre Atepa Goudiaby bi en Sénégal day la ñu yor ci ay bor bari na docteur Thierno bu UCAD ci termine yéene waaw nee bor bi nii mu mel nii la kenn mënta justifier daa bëri di yéene gi ne étudiants yi nga xam ne nag maanaam dañoo nekk ci université privée te ñu dàq leen génnee leen ci biti waaw dañ doon waaye seen maire gi day tuutee des ñu daanu ci kaw cortège présidentiel bi laa la a ah, Macky la yi politique yi société civile ñëpp interpellé nañ leen est-ce que jar na ñoo interpellé <laughs> yaa ko moom fabal la sant constitution réew mi jox na la sa indépendance kay looy xaar fabal indépendance de la justice moom warta nekk sax débat ci mim réew boo paree mën a di tëjal Samsung